liggéey muy dox. liggéey muy dox. liggéey muy dox. liggéey muy dox. liggéey muy dox la andi tey. màcc liggéey muy dox. liggéey muy dox moom. liggéey muy dox moom. le fils de Mama Ba ziar naa la. maa la ziar naa la. mais mon frère nama naa la. alhamdulilah. tey noo gisee Madji Madji 2. pare na. pare na mais est ce que mun nga présenté wu tey ñi la xamul. li yaakaar gaa xam nañ ma. nañu bëri da nga leen da nga réer léegi lan la. réer ma maa ngi si sport bi ba léegi. yaa ngi si sport ba léegi dëgg la. mais nama naa la. maa ngi la woo gannaaw. da nga écrire waalo. ñu neex. Nine léegi. waaw da ngay encadré élément yi rek. ndeysaan. incha allah xamuñu sport lañu xam bi ñu juddoo ba léegi. waaw xamuñu leneen. kon donc. mais noo gisee Maguette. kàlla. noo gisee sa champion bi tey. pare na. pare na. pare na. lan la gën a liggéey si combat bi. lépp lépp liggéey na xeex physique contact. dañ koy arrêté sax mu ne déedéet day continué. dëgg la. ça veut dire que. yëg na boppam quoi parce que athlète bu demee ba toolu foofu rek. waaw na dal. xel na dal tey consigne bi lan la. waaw mu dem ndànk tey rek ko cër. waaw dem mu dem boo dem mu taxaw lépp muy dem mu teg ko si yoon loolu la quoi. Ah. combat bu combat bu yàgg nga gis. bu yàggee arrangé nañ bu yéexee arrangé nañ. dëgg la bu gaawee arrangé nañ. waaw nga si Alioune Seye 2 points. waaw loolu la aussi def code. dañ ciy def rabi. bu si na xaar lépp. na xaar lépp. combat boobu fonk la. sama combat la maa ko moom. yaa ku baax sama jabar dafa gaañu Diourbel. bu jógee fii ñëw nekk man. chaque guddi pendant cinq jours. sama kër lay toog ba trois heures du matin. kase si man. wala lu ma lu ma ko am. yàlla na ko yàlla jàppale. sa waay. sa waay la. sa waay la ku la defal loolu sa nit ku baax la. Alioune bu meree doo ko ana la gàgër de. mooy bi daa entraîné ji. entraîné ji mais dégg léegi yow avancé nag. léegi nag nga nekk doomu moom ba est-ce que tey làmb ñu ngi delloo njukkal sa papa li mu defoon. ah amoon na daal ay jamono ñu tuddee ko drapeau mais gisaatu ma ko. ah non ana promesse yi ñu waxoon si sa papa. Oh. boo xamante ne daa doy déggee ñu ne mbër amul kóllëre. waaw du mbër yëpp. waaw mais am na mbër yoo xam ne dañuy fàtte. dañuy fàtte sa papa mbër bu ne lebal na la bés. ñan la lebal bés. mbër yi mu entraîné bari na. bari na wax ma. mbër yi mu jàppale bari na. wax ma. mais yàlla baax na. yàlla baax na. yàlla yor ñëpp. sa papa bu muy gaañu ba ñaata at nga amoon. boobu maa ngi amoon 12 ans. 12 ans. maa ngi amoon 12 ans. waaw bu nekk papa ju baax. bi nga toogee yeewu dégg rajo. loolu jour boobu. loolu kër la la ma fekk. kër Lac de Guiers 1 fan Guédiawaye. picc picc. picc picc Lac de Guiers 2 wala 1. Lac jël may ma ko. bi muy gaañu fa la kër Lac de Guiers suba teel boobu. fajar fajar. la ma fekk. ndeysaan. Lac de Guiers du hasard moo ñu boole. ndeysaan. waaw loolu suba teel fajar boobu. waaw mais dañuy sant yàlla parce que sama papa dafa si ñun quoi. waaw daa def si ñu gëm yàlla. bi nga demee tiim paa bi jour boobu nan nga ko tiimee wala fii. suñ borom moo soxla dama jàpp ne suñ moo soxla mu jël. waaw mu soxlawul woon du jël moo ñu ko joxoon ba mu juum donc bu demee yi jàpp ne mbir suñ la. ndeysaan. Eh, c'est ça quoi àdduna la. mais gars nañu koy nañu koy gëstu. nañu gëstu paa bi. bu déggee nañu koy gëstu maanaam bu caagee ne ñu gëstu ñu ñun. waaw mais ñu koy gerte. parce que ñi mu seqaloon teraanga yëpp mën nga toog at benn nit nga siy gis. sama papa da ay semaine si àll bi bu ñu xam si lu mu nekk ay soxlawu nit lay dem di defi bàyyi njabootam si ginnaaw. dëgg la mais sant yàlla. sant yàlla sant yàlla mais Alioune Seye dama ko ñëpp ñaanal. waaw nit ku baax day yëngate xaalis bari li ah, ah. ma jox su ma bañee sax daf may mere ne xam ne Alioune Seye amul kase bu dëgër ah. mais su ma bañee daf may mere xaalis bari la yëngati jox dama jëlal nga yóbbul maire bi mais kon sant yàlla tuddee nga mama ba sa doom sama mbokk góor doom sa doom mais sama am sëñ Fallou la am waaw ak Seyna ndeysaan daal lapp sant yàlla sant yàlla suñu borom doomu Mama Ba ndeysaan ñu ngi ñaanal papam yàlla na ko yàlla xare àjjana moom ak mu nekkoon Père Gora Père Gora c'était au mois juin 2009 Arau. Arau Sur la route de Saint-Louis. Ah. un accident d'une grave extrémité. wallaay jëlee ko fi. Eh, sant yàlla sant oh mama bu doon ànd la Misal 1 2. mission misal mau rek. ñun suñu mission dañuy dem. waaw. mais fi mu tegoon tànkam roon koy teg tànkam ba léegi. dëgg la roon ba léegi bàyyiwul. sama rek. ana sama nga koy andi. naa koy indil Alioune Seye. ndeysaan kon kon di ko andi. oh oh bu boobaa yaram dina daw mais xale yi duñu xam duñu xam loolu. xale yi duñu sib loolu. ndeysaan. mais Souleymane dinaa la invité matinal des sports. amul problème ci Lutte TV. moo pare léegi damay jël sa numéro. naa la woo. incha allah ki mooy Souleymane Ba doomu Mama Ba dinaa ko invité matinal des sports bu boobaa dinañ toj en direct lay nekk vraiment ma dekkal kan mooy Mama Ba kan mooy Mama Ba kan kii li mu def ci écurie Waalo ndeysaan ba boobaa sama booy bi bu la neexee sax ànd ak Alioune Seye Junior loolu dina ma neex jërëjëf